jërëjëf. tey moom tey moom Bamba. tey nee naa siin dafa bañ tey ah. la ko wax. tey moom siin dafa bañ. fii mooy cosaan. lii mooy suñu aada. maa mbégte bu rëy nag. que maa ngi ci sama élément. je suis dans mon environnement naturel. ñu nekk fii Ndiaye Ndiaye mu nekk un quartier authentique un quartier séeréer nekk ci biir Fatick nekk ci biir Sine ma am mbégte bu parce que sama grand frère sama xarit muy ministre d'État Cheikh Kanté envoyé de son excellence monsieur le président de République moo xewle jël ma comme invité spécial def un programme bu mu jooyib jigéen département bi

Tu vois l'emploi, tu vois également l'entrepreneuriat financement projet y a mu digle woon le premier mandat bi 500 000 emplois créé 493 000 emplois qui xam présents def na ko premier mandat deuxième mandat mon ami, j'ai engagement pour 1 million d'emplois. emplois mais dina ko dépassé parce a a yëpp de ngeen son discours du 8 avril du 8 mars beneen bi nag mooy du 3 avril dernier mu ne day yëkkati 450 milliards jël ko également ndaw yi moo tax fii Fatick Cheikh Kanté wooñ jigéen yi nag mu ne avant loolu di ñëw man dinaa yëkkati xaalis lëkkaloo ak waa microfinance pour jàppale jigéen yooyu ci seen projet ma ne ko grand booy dem dafa bàyyi parce que man loolu la gëm te la président digle moo tax tey ñu bëgg kontaan bu baax a baax. ba daal bañ na. siin kese bañ na. mooy saara ngi noonu dama ko ni siin tey bañ na séeréer bu nekkee ci biir bokkam rek bëgg. waaw bañ na.